salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi salaamaaleykum mbokk éleveurs yi ñu ngi amaat mbégte a contentement ñëw fi nga xam ne ni tey moom mooy Tëngéej di Rufisque di euh, salon bu mag muy Saladel macha allah di neuvième édition ñu war fee ñëw nag euh, càmbara leen champion yi nga xam ne ni tey ñoom ñoo fi nekk euh, ci émission bi nga xam ne nii mooy émission bu mag bi di xam sa champion comme ni ñu ko daan waxee rek gars yi émission baa ngi ni élevage dong moo ko tax a jog muy élevage su bi di élevage bi xam nga nu ñuy def dañuy ànd ak suñu caméraman daal di dugg ci biir wan leen yan champion ñoo nekk ci Salon B, 9ème édition B. Yaya. waaw macha allah téléspectateurs yi ñu ngi nii suñu première euh, box di box numéro 15 euh, di bergerie Yaay Gas macha allah fekk fi un daanaan un champion Bac euh, Bac ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ah, man daal ñu ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di la ndokkeel si teew bu nga fi teew du nuyu waa RMB TV di ziar ñëpp mais baa ci tey télé bi di RMB TV muy Rufisque Mbao TV tey moo ñëw ci salon bi xool yan champion ñoo fi nekk ci émission bi xam sa champion euh, tey euh, fàttali lañu euh, turu bergerie bi ak fan la nekk. waaw bergerie mi ngi tudd bergerie Yaay Gass. Mhm. nekk kii Fass Médina Fass Mbao mhm. quartier Arona Sow 2. Mhm. foofu la foofu la nekk. mais kan mooy Yaay Gass. Yaay Gass sama yaay la daal. Ah. <laughs> <laughs> mais tey bëggoon nañ xam tey bàcc mooy kan ak fan lay càmmee ak kañ la dugg ci élevage wu laadum bi. waaw euh, Bathie Konte yi benn ndongo la. Mhm. waaw nekk débutant nag. Mhm. nekk débutant quoi. Mhm. Euh, di sàmmee euh, Samsam 3 quartier Arouna Sow 2 foofu laay càmmee daal. macha allah mais tey Bathie un débutant la dina yor sujet yu mel nii tey bëggoon nañ xam Bathie kañ la dugg ci élevage. waaw maa ngi fi dugg mille 2020 waaw 2020. macha allah si temps yi corona bi daal. ci laa ci laa dugg si laadum daal. mais kan moo la dugal ci laadum. waa wax dëgg yàlla sama gars yi baax na ñoom ñu si dugal ñoom Babacar Ñang mhm. euh, Baye Sène mhm. wax dëgg yàlla ak Mor Samb mais kan moo la njëkk a jox euh, sujet Lado non Jibiro Sow ah saw Sow Jibiru macha allah euh, ndaana borom bergerie Namarel waaw mais tey gis nañ nga def fii benn sélection bu mucc ayib mhm. bëggoon nañ nga décortiquer ñu oralement lan ak lan lan nga exposé fii waaw maa ngi exposé ay quelques sujets waaw yii yëpp wax dëgg yàlla maa leen liggéey sama liggéey la. maanaam waaw sama liggéey la. Hmm. waaw semal yëpp sama liggéey la bu moyee mal bi daal. Hmm. yii yëpp sama liggéey la quoi si man la juddoo bii euh, mu ngi nekk doomu kii euh, yaay ji. doomu booy séeréer lañ jël. teg ko si ma euh, si benn famille. waaw ba ci xaaral après dinañ ñëw ci ci ci ci périgéré bi. sélection bi catégorie yi nga exposé laa bëggoon nga ñëwal ñu si. waaw catégorie. Hmm. nee naa la yii yëpp man maa sama liggéey la. waaw. waaw wax dëgg yàlla yi man lañ juddile seen yaay laa jënd uh-huh. léegi bu ma jëndee seen yaay après teg si ay maal uh-huh. maal yi différent uh-huh. ñu wàcceen mi yi quoi mais ñaar yi nag maal bee moo ko mooy mooy seen pap moo lañ jur quoi macha allah tey euh, catégorie yi tey gis nañ fi euh, agnelle gis nañ fi euh, femelle espoir gis nañ fi mâle espoir tey bëggoon nañ nga ñëwal ñu si si catégorie bi nga xam ne nii tey moom nga def sélection tey gisuñu bàcc dekk un femelle tey lu tax nga def choix bi waaw man moom bu ma sañoon lu ma liggéey laay wane. Mhm. waaw. macha maanaam bu ma sañoon daal. Mhm. li ma liggéey toujours moom laa yóbbu foire. Mhm. ñi xam ne man maa ngi. maa ngi maa maa ngi liggéey daal. waaw. mais bàcc bëggoon nañ xam sa exposition bii nii mooy sa ñaateem exposition. non bii mooy première fois nag. bii mooy. première macha allah macha allah première fois. waaw mi ngi noonu kon bokk euh, téléspectateurs yi euh, dañuy xuus dugg ci li nga xam ne ni moom mooy présentation de sujets bàcc jàpp xari wax ñu xar bu nekk euh, pédigréem ñen ñoo ko jur côté yaayam ak côté papaam bàcc ñu dem ci présentation des sujets. ok donc benn dong booy séeréer lañ jël teg ko si benn femelle. Mhm. mu wàcc ko. Mhm. léegi ñu jël yaay ji teg si duugaynde mhm. mu wàcc bii. doomu gayne la waaw doomu gayne la ma sha allah waaw maa ngi ko won ci yaay ji maa ngi ko won ci Seydou Ba hmm fekk mu tobi ci du gayne ba hmm après bam ñëw la ma waccel ben bu jigen bi ma sha allah ma sha allah mhm. mi ci ñaata mois mi ci 14 mois 14 mois wa ma sha allah hmm acca jàppaatal benen ñi chambar ko hmm okay. waaw bii mooy jamono. jamono doomu Moïse la. doomu. Moïse Moïse. waaw. oui bu daan faal. waaw macha allah Moïse Sulker moo ko jur. Mhm. si mois. mi ngi si 15 mois waaw dugg na 16 mois nag. 16 mois yaayam fu mu yaayam doomu sëtu Karkar la. sëtu Karkar ak euh, commandant Kotso ak wàllu Mbuj. macha allah mois. waaw mi am 15 mois macha allah 16 mois. oui macha allah. ci jàppaatal beneen ñu càmbar. Ah. lañ jël teg ko si nun kii nu ñu jël ko teg ko si ah, Baba Diakhal mu mois waaw ñu dugg si sixième mois quoi macha allah waaw mhm. famille bi moo leen ji moo leen tawloo quoi. moom maal bi doomu famille bi la ak maal bi ak maal bi la waaw. macha allah. doomu famille bi la ak maal bi quoi. ok. ñu ngi si deux mois. deux mois waaw ay seex lañ. ay seex lañ benn baa ngi nii. macha allah. macha allah macha allah. waaw. macha allah. bële mu ne. attention. ni yaaji doom mhm. boy taal la yaaji doom boy taal waaw ya. mhm. boy taal la xam nañ ko maanaam benn champion la woon dam loo moo ko moomoon quoi waaw mhm. yaaji lañ euh, dañu jël benn famille tekk sërif mu wàcc yaayi yaayi ñu jël ko tekk si petit bilal moom mu wàcc moom juddu quoi doomu petit bilal la macha allah petit bilal bu Basir job? Bas Diop waaw macha allah waaw mm. ah, mi ngi noonu. waaw di petit bilal moom kenn ku ne xam na kan moo ko jur quoi Dugaynde moo ko jur. Dugaynde Saalum macha allah. mi ngi si mois. mi ngi mois et demi. macha allah waaw macha allah. si quatre mois et demi macha allah di ay sujet yu doy waar. Mm-hmm. nekk première édition macha allah ci euh, Saladel bi mais tey bàcci euh, ñu bëggoon nga euh, fàttali téléspectateurs yi sa numéro téléphone sa adresse pour ki nga xam ne ni tey mi ngi toog di seetaan émission bi bëggoon sujet bàcc naka lay def ba ñëw ci bàcc. waaw euh, numéro téléphone bi mu ngi nekk 77. 860. 25 66. répète ko waaw 77. 860 25 66. macha allah beneen numéro bi 78. 130 84 66. 78 130 84 66. macha allah mi ngi noonu adresse bi di. Euh, euh, Médina Fass Mbao. Médina Fass Mbao quartier Arnaud Sow 2. macha allah ah. dégg ngeen téléspectateurs yi ku soxla rek euh, sujet yu bergerie yaay kaas macha allah boo contacter bàcc macha allah di nga ci am mais bàcc tey ku ñëwoon tey ci bergerie bi bëggoon si sujet ndax dina ci jëlee sujet. waaw maanaam élevage par chance wax. Mm-hmm. waaw. macha allah ku bu soobee boo dikkee moom. incha allah bu yàlla defee sa sa moom dañ si dañ si am bu soob yàlla. macha allah waaw looy tàggatoo ak euh, téléspectateur RMB TV. waaw man Ndiaye maa ngi leen di gërëm di leen sant. Mm-hmm. di gërëm waa RMB TV. di rafetlu seen liggéey wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey liggéey bu mucc si ayib. et puis tamit euh, yaa jiite bul euh, ah, xam sa gerte numéro ak 2 bi yëpp wax dëgg yàlla gis nañ coono yi ngi siy wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu. Mm-hmm. di la ndokkeel dina la jaajëfal daal di wax ma sa coono ndax dëgg yàlla kon mi ngi noonu téléspectateurs yi dañuy xuusaat rek jàllaat ci beneen box xoolaat ban champion ak ban daanaan moo fa nekk ñu demaat jaa ngeen jëf waaw macha allah téléspectateurs yi ñoo ngi nii suñu deuxième box euh, nekk box numéro box numéro Babacar. 16 17. 16 17 macha allah euh, di bergerie Awa Sayer Degen Tanor ñu fekk fi un daanaan un champion Babacar Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar. Mor ñu ngi lay ziar di lay delloo nuyu di la dalal si box 16 17 bergerie Awa Sayer Degen mais tey euh, Awa Sayer Degen mooy kan. aw seer dëggantanoor mooy sama maam la mhm. moo meññ samay maam maam bi jur sama yaay ak bi jur sama papa mhm. waaw moo tax ma mu nekk ku ma ku ma fonk mhm. référence moo tax ma tuddee ko bergerie bi macha allah mi ngi noonu euh, tey euh, ñu bëggoon a xam Babacar kañ la dugg ci élevage laadum waaw élevage laadum maa ngi si dugg 2011 waaw sama benn grand lobaat lobaat taal moo ma jaayaan benn femelle benn benn mbote bu ndaw bu jigéen si laa débuté waaw ba 2021 nag. si mm-hmm. la tabax bergerie. Mm-hmm. dem wutaat beneen maal. si mm-hmm. sama beneen xarit sama xarit enfance euh, As Gueye. jox ma benn maal bu ñu naan ingénieur. moom laa indi woon dem si ay aussi recruter fa benn femelle. waaw moom après yooyu ñoo meññ yi fi nekk yi yëpp. macha allah mais tey euh, yaa ngi fii nga xam ne nii tey moom mooy euh, Saladel di neuvième édition ñu bëggoon xam tey bi mooy sa ñaateem édition. waa Mor bi nag euh, mën na ni mooy sama première édition. Mhm. mën naa ni novice laa si. Mhm. maa ngi doo koy dugg foir mhm. euh, at yi passé yëpp maa ngi nekk sama ruq di liggéey. bon ñu ni ma jot na pour ma génn. moo tax Saladel bi ma ne lu ma ko raté. ma ñëw jël ñaari box box 16 17. pour exposer wane li ma li ma yor sama kër. macha mi ngi tay tey euh, téléspectateurs yi nga xamné tay ñi ngi tok di seetaan euh, émission xam sa champion euh, bëggoon xam bergerie Awa Sayer fan la nekk ci ci Sénégal ak tamit numéro téléphone bi nga fatali len ko. wa bergerie Awa Sayer Tanor mi ngi nekk table kilomètre 13 route de Rifisque, villa numéro 121. Mhm. bon sama téléphone di 77 611 04 61. macha allah kon dañuy ñëw ci li nga xam ne ni tey euh, moom nga exposé nga ñëwal ñu ko oralement rek euh, lan ak lan ak lan yan catégorie nga sélectionné indi ko fii. waaw dama sélectionné fii benn catégorie jeune mâle. Mhm. Euh, benn doomu daara ji. meer mhm. bi naan meer doomu du gaynde mhm. moom laa jël mooy daara ji. doomu doomam di Saala Gàmmu. Saala Gàmmu moo nekk nii. macha allah boole kook benn grande femelle. ak ñaari espoir. ñaari ñaari espoir ak mm. euh, benn jeune mâle. Mm-hmm. jeune mâle bi aussi tamit doomu kii la doomu daara ji la. doomu daara ji la. macha allah mi ngi ne aussi aussi mm-hmm. am na fi am na fi taawam. Mm-hmm. moom mi ngi si 11 mois. Euh, dugg na si le 3 bii la am 12 mois. un an taawam moo tëdd na le ak. Euh, Euh, Nabou moo nekk noonu si ginnaaw. macha allah waaw ah, mi ngi noonu téléspectateurs yi oralement la leen ko présenté xam naa ah, doo leen xàmmee li nga xam ne mooy sujet dañuy dem nag présentation des sujets directement su ko defee ñu jàpp sujet yi mu wax ñu xar yi pédigré bi fan la bokk côté yaayam ak côté papam ak xar bi na la tudd Babacar ñu dem si présentation des. Awa Sayer moom laa tuddee Awa Sayer déggantanoor. macha allah. Euh, papaam di góor gi. Mhm. di góor gi. waaw ah. góor mooy. sama xarit As As gay mhm. moo moko moo ko moom. di doomu wërsëg. wërsëg mhm. di doomu machallah Papi jey machallah yaayam di mo nek na la ci ginaaw mhm. seynawu di saawu Biram Ndiémé mo jëloon ci aaya ba. macha ya bi mooy. ko juddulee. wa bi man mako ko wa mi ngi am ñaata mois. mi ngi ci 17 mois. 17 mois 17 mois machallah waaw ah, bii nag euh, moor mooy Anta. Mhm. sama grande sœur laa ko tuddee. Mhm. moom doomu ingénieur la. macha allah mooy ingénieur euh, moo ko jur. ingénieur di doomu góor gi. Mhm. góor gi di doomu wërsëg wërsëg di doomu macha allah Papi Dieye. macha allah yaayam nag benn femelle bu ma judle woon kër ga la. Euh, malheureusement dafa daanu. dama ko joxoon sam benn booy mu daanu. macha allah mooy mooy yaayam quoi. moom mi ngi si un an juste. un an juste waaw macha allah. Mm. donc añeel la ñu demaat si beneen prix. bëjël bi incisé waaw bii mooy Saala Gàmmu. moom tam mhm. sama maam laa ko tuddee. Mhm. di doomu Daara ji. Mhm. ma doomu Du Gaynde. Daara ji doomu Du Gaynde. yaayam di yaa Seyda. di doom si docteur. docteur Koromak. waaw moom mi ngi am un an juste. un an le la am un an. macha allah waaw. mi ngi noonu. waaw ñu jàppaat beneen Cissé waaw macha allah euh, Babacar euh, beneen jeune mâle wala mbote. waaw euh, mbote bi mooy kan jeune mhm. la mi ngi si 4 mois. le bi passé la am 4 mois. macha allah moom aussi doomu Daara ji la. doomu Daara ji du gaynde macha allah yaayam di Awa Sayer. Mhm. moo nekk nii. Mhm. mooy taaw Awa Sayer. macha ak Daara ji. macha allah Ya, ya. babakar mbote bi kuko jur. wa mbote bi moy taawu Saala Gàmmu. ok ak euh, famille bi seynabu bi ma mhm. tuddee sama soxna. macha allah di nuyu au passage diko ko gërëm sama soxna. macha allah mooy taawam ak euh, Saala Gàmmu. macha allah macha allah moom mi ngi ci le set bi lay am 1 mois. 1 mois le set lay am 1 mois. ok macha allah. yaay ji moo sama sama soxna. macha allah moom si grand aaya ba ko jëlee woon. Mm-hmm. di doom si Moubarak. ok di Lion. ak mm-hmm. Tyson. ko jëlee woon quoi moom mi ngi si bi mooy quatrième portem. macha allah macha waaw macha allah mi ngi noonu euh, téléspectateurs yi première box ba noonu dañuy jàll aussi tamit si li nga xam ne nii moom mooy euh, deuxième box bi ndax bergerie Awa Saer Tanor macha allah ñaari box la exposé fi nga xam ne nii tey euh, moom mooy euh, Saladel euh, di neuvième édition bi macha allah. maal bi nga téye nii moom mooy kan ak fan la bokk. waaw Mor bi mooy ingénieur. Mhm. moom laa jëlee woon si As Gueye. Mhm. moom ma jaay. macha allah. moom mooy doomu góor gi. góor gi di mhm. doomu wërsëg wërsëg di doomu macha allah. macha allah waa yaayam saawu César la. Mhm. moom tey moo nekkoon ci gétt gi di def production yi. waaw moom moo boo gisee moom moo jur jeune mâle yi nekk fii yëpp. Mhm. ak femelle bii nii. macha allah moom mi ngi si trois ans. macha allah macha allah 34 mois. macha allah waaw. waaw euh, Babacar kii kan la. waaw bi mooy Samba Koura Diop. Mhm. moom aussi doomu ingénieur la. Mhm. ak euh, Seynabou. Seynabou ah, macha allah moom mi ngi toll si six mois et demi. six mois et demi. Ah. macha allah. moom dafa xaw macha allah. babakar taxaw allah gis na ñu bari ñu taxaw ci box bi wor ko di johan mbote bi ah. mais macha allah mbote bi mooy kan ak fa la bokk waaw bii mooy maalaw mhm. moom aussi ingénieur moo ko jur mhm. euh, fixé la mhm. yaayam moo nekk nii mooy coro macha allah papa ah, papaam moo ko tëbaat quoi ok mu nekk fixé macha allah moom mu si trois mois trois mois mu ngi si trois mois macha allah mi ngi noonu téléspectateurs yi ah gis nañ fi ay événement yu doy waar ci e, bergerie Awa Sayer Degen Tanor macha allah waaw waaw macha allah Babacar kii tamit mooy kan ak fan la bokk. waaw bii mooy bii mooy pël. moom aussi maal bi moo jur ingénieur. Ah. mu si 4 mois. Mhm. yaayam moom maa ngi ko bàyyi kër ga maa ko ok saaw di saaw macha Papi jey tamit. macha wa waaw. mi ngi tolu ci 4 mois. macha allah. euh ki moy kan ak fa la bok mom tamit. waaw bii mooy Ibra Degen Tanor. Ibra Degen mom sama mam la ko tuddee. ok mom tamit mom tam doomu ingénieur eh, la. macha euh ak yasin yasin tam mako jodulu mi ngi kër ga. ñom ñewul yaayam ñewul toll ci huit mois. macha allah mu ngi doog a dugg ci huitième mois am ko macha allah waaw. mais tey Babacar euh, gis nañ euh, liggéey bi tey daanaka Mali rek ñoom ñooy dugg di continuer liggéey bi. Oh. Euh, tey lan mooy secret bergerie Awa Sayer Deguene. waaw secret bi mooy xont rek. Mhm. waaw xont à volonté. Mhm. en même temps aussi tamit bu gisee lu rafet nga dem wuti ko. Mhm. parce que ingénieur moo fi nekkoon di liggéey moo jur lii yëpp. si laa demee recruter waat beneen euh, jeune mâle sama grand frère sama imam imam Djili mhm. mooy Saala am moo nekk fële. Ah. pour mu ñëw eggali liggéey bi. incha allah waaw incha allah. mais tey euh, lan mooy objectif bu bergerie bi ndax éleveurs yi tey am na si ñoo xam ne seen objectif mooy bi am ñoo xam ne ay xaru rafet am ñoo xam ne ay xaru concours tey su la doon laaj bergerie Awa euh, Saer lan mooy objectif am lan la. waaw objectif bi moom man plus passion bi la quoi. Mhm. xaalis bi jiitalu ma xaalis bi trop. dëgg man euh, passion bi moom si gën a neex. Mhm. yar ñu rafet. Mhm. ku ko gis apprécier ko. macha allah gën a amélioré aussi tamit. ok écarté wu ma aussi tamit dem si yeneen bergerie wutaat leneen loo xam ne aw ma ko. pour renforcer sama bergerie. macha allah boo xamante ni après nañ ma si dégg quoi. Mhm. waaw loolu daal l'objectif mais tey gis nañ fi ay jeunes mâles yu doy waar mais Babacar mënoo lépp tey am na téléspectateur yi nga xam ne tey ñu ngi toog di seetaan émission bi. Euh, tey buñ bëggoon ci bergerie yi tey si euh, euh, jeune Mali ndax dinañ si mën a am. waaw jeune Mali ma comme ni nga wax rek ma lu ma bëgg xar mënu ma téye lépp. si si man damaa bëgg xar. Mhm. pour man lu ma jubluwee rek. Mhm. warul génn bergerie bi mais. Mhm. day day dem ba xat aussi tam mënoo téye lépp. dëgg la waaw ku fi ñëw aussi tamit ñu yombal ko rek. partagé comme ni nga wax tamit élevage aussi partage la. macha allah ku bëgg boo ñëwee ñu yombalal la ko jox la ko incha allah. macha allah fàttaliwaatal téléspectateur RMB TV yi Euh, sa adresse bi exact ak numéro téléphone bi. waaw adresse bi mooy Tabla Tivaouane kilomètre 13 route de Rufisque. Mhm. villa numéro 121. Mhm. sama téléphone di 77. 611 04 61. répété waatal numéro bi. 77 611 04 61. macha allah mi ngi noonu téléspectateur numéro baa ngi noonu képp ku soxla rek ci jeune mâle yi nga xam ne nii tey moom leen leen won fii macha allah ñu nekk ay jeune mâle yi nga xam ne nii tey am nañ capital génétique pedigree bi baax na. te am nañ yaakaar ci jàmm gi macha allah ki soxla rek boo contacté numéro ba ngi noonu muy numéro Babacar ah, di nga am si zone Mali macha allah di nga ñëw aussi tamit ci li nga xam ne ni tey moom mooy bergerie Awa Seer Degen Tanor macha allah di bergerie bi nga xam ne ni tey ah, mi ngi liggéey lu mucc ayib waaye boolewu kook wax macha allah di koo xam ne ni un naanaan un champion. dugg ci élevage bi depuis 2011 macha allah ah, signes yi doy waar ñoo fi nekk dañuy ànd ak moom bàyyi ko mu joxe dernier tàggatoom su ko defee ñu jàllaat ci beneen box. xanaa tàggatoo moom gërëm la rek. Mhm. gërëm euh, samay waajur. Mhm. surtout sama yaay. Euh, di gërëm trop ak sama soxna Seynabou Diop ak sunu waa kër yëpp. di leen baal wax tamit si xar yi dérangement bi. Mhm. ak sama xarit yëpp. waa retrouvaille ñoom grand Ousmane. ñoom ñëpp ku lim juum. équipe bi quoi daal. macha allah maa ngi maa gërëm ñëpp. waaw mi ngi noonu gars yi euh, téléspectateurs yi kon ñu jàllaat ci beneen box rek xoolaat fa un daanaan un champion jaa jëf. téléspectateurs yi ñoo ngi nii suñu troisième euh, box macha allah di box numéro 21 macha allah ñu fekk fii euh, un daanaan un champion bergerie euh, Somadi élevage macha allah nekk bergerie boo xam ne nii kay ñu ko présenté éleveurs yi ndax un naanaan moo fa nekk di def lu mucc ayib ci élevage bi muy El tey moom la ñuy fàttaliwaat gars yi wanaat leen kan mooy El ak li mu jot a def ci. élevage bi ak foire yi nga xam ne jaar na fi 2021 2022 mu daal di ëkk woon lu yàgg tey ñëwaat génnaat 2023 fii nga xam ne ni tey moom mooy Saladel di neuvième édition bi ñu ñëw ci bergerie di élevage consulting Amar ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum euh, salaam ñu ngi lay fay di la ziareet di wax ni ñoo ngi kontaan bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw seet si ma. Mhm. Euh, ngir xar yi ñëw ci foiru Saladel bi ñoo ngi lay déglu incha allah. Ah, mashallah Amar, euh, Omar Tay bergerie Somadi élevage consulting ñu ngi 9e édition Saladel moi exposition. bu deuxième fois exposition. Mhm. Euh, pour nous, nous jëmmal li nga mhm. deuxième fois la toll. mais tey euh, nañ xam bergerie élevage consulting kañ la dugg ci élevage. l'élevage Somady moom yaa Il y a trois ans maximum mhm. la am ci cham gi mhm. mais nak euh, man mi nga xamne xeyna may tête bi mhm. yalla dogal na yag na cham ça fait presque 15 ans ou 17 ans man ci cham gi mais liñ wax suma di élevage mom euh, ñong ko taxawal ya 3 ans de cela Mm-hmm. macha ah, allah euh, mais tey ñu gis ngeen def euh, sélection bu mucc ayib te bàyyi box bi mu feex mm-hmm. euh, tey ñëwal ñu si qualité sélection bi yan catégorie ngeen indi fii ci neuvième édition bi. waaw catégorie bi ñu indi moom xam nga yàlla daa dogal. Mm-hmm. ñëpp xam nañ El Capo moom yaakaar naa kenn dootu ko présenté si càmm gi. Ah. te pour ñu indi ko ci foire bi. dañ koy indi moom. ak ñaari doomam kase ak benn femelle. Mhm. pour wanewaat ko ni maanaam macha allah xar bu wér dafa am solo ci càmm. Mhm. yàlla may na ko yaakaar naa jaar na fi jaaraat fi. Mhm. ci ci ci foire yi. ba yàlla suturaal ko mu amaat état bii mu toll. donc pour nga indiwaat ko nit ñi gisaat ko il fallait que visibilité da ci am solo. kon nga jël xar yu bare boole leen du am benn rendement. vaut mieux nga indi ko moom ak ñaari doomam rek ak benn femelle ñu gunge ko euh, li ci des nga def sa foire ci jàmm ak salaam. macha allah euh, mi ngi noonu tey euh, ñu bëggoon a caar euh, tuuti rek ci palmarès u El Capo balaa ñuy ñëw ci présentation des sujets tey gis nañ El Capo bokk sàmm la njëkk a génn jël fa première place bi naka ngeen ko waajale woon. waaw xam nga pour dellu ci ginnaaw tuuti. Mhm. filaa bi la njëkk génn sax. Mhm. yàlla dogal lim ciy dogal. waaw ah. avant bokk sàmm dem nañ Fatick bi la njëkkee. waaw ah. ñu dem Fatick ñëw. Euh, le trophée yi. Mhm. première. Mhm. bokk même chose. Mhm. dem euh, même chose. Euh, demaat Mbour. Mbour du met ko. dogal biñ fi ci ci ok Non, permet. quatre médailles d'or la successif. au bout de cinq mois maximum. Machallah. mais tes trophée non, lan ah Mor mom dama ci sawara tontu ak hmm ndax keroog maa ngi koy wax ma je touche du bois xar mom dina tax ñu gëna xam nit ki. Mhm. comme nit nit di taxee ñuy gëna a xam xar yi. Mhm. waaye mom moom euh, bokku na ci ñima gëna lancer mhm. bu ñu né somari élevage ni Omar Sène. Euh, grâce à El Capo. parce que nek na ci càmm gi ça fait 15 ans. hmm na ñu bari xamuñu ma. donte euh, daan naa milité Thiès daan exposé fii Saladam 2015 exposé na xam 2014. waaw exposé na fii Saladam. Mhm. mais bobu dama don dem sama titre personnel. Mhm. muy Omar Sen. mais comme légui damay liggéey ak suma frère. Mhm. bu né en France. donc euh, soo ma di taxaw ci. Euh, niñ ko mën a dal capo capot na bu ñu fekkoon tey 10 bu nañu ci 100. vraiment parce que euh, catuwuñ suñu bop incha allah may na ñoy opportunité yu bari. may nañu ay biens yu bari tamit grâce ak génn yi muy génn ndax bu génnee ba def affaire ñi gis ko topp ko képp ku ñëw kër ga di nga gis lo xam ni donte moom bu ko jurul sax ndax yenen maala nga fa nekk di produire nga gis fa loo xam def na ak yokkute gu mag a mag ci bergerie bi vraiment macha allah macha euh, ñu ñëw rek euh, ndax téléspectateurs yi lañ koy fàttali mais dinañ si ñëwaat euh, muy adresse u bergerie Samadi élevage ak numéro téléphone bi en attendant ñu ñëwaat ci adresse bi moom moo ngi nekk euh, Massar. 2 mhm. euh, ginnaaw hôpital traditionnel mhm. côté r 59 bi. Mhm. képp fa ñëw euh, numéro 77 713 68 41. ou bien 76 253 66 25. Inch'Allah, allah la woo ndax berger de ci biir kër gi la nekk. machallah, allah nous téléspectateurs yi dañuy dem ci deuxième point présentation des sujets ñu xuus dugg ci euh, box bi Omar jàppale ñu xar yi présenté ñu xar yi euh, fan lañ bokk ñan ñoo leen jur ak nan lañ tudd incha allah Omar. téléspectateurs yi mi ngi noonu Omar. Euh, mhm. ñu jàpp benn mbote bu ndaw bu jigéen mbote bi ñu jàpp nii moom mooy kan ak fan la bokk. waaw kii mbote bi moom mooy bébé aram. Mhm. mbote bi mooy bébé aram. waaw di doom ci madame Sène. Mhm. madame seen doon fixation Abdou Fall. Mhm. mu laal ci pandaw bi. Mhm. mu doon femelle boo xam ne mooy di nga ko gis. waaw ah. femelle bu extra boo xam ne macha allah mhm. yàlla def sama benn xarit joxoon ma ko. mu jël ko teg ko ci El Capo. mu génne bébé aram mi. doomu El Capo la doomu El Capo moo ngi toll ci. macha allah ci tey macha allah. mu ngi noonu euh, téléspectateurs yi doomu El Capo ngi nii ñu doon laaj. production El Capo. production bu jigéen a ngi nii càmbar leen ko macha allah di mboote bu rafet. waaw Amar ñu xuusaat ñu xool yaay ji kan la. laa lay wax sànq mooy madame Sène. waaw. Euh, moom laa naan la moom mooy fixation Abdou Fall bi. dëgg la muy femelle boo xam ne vraiment. Mhm. Euh, rëccu ma ni mu ko jëndee vraiment. Mhm. ndax euh, damaa gis lu mu jur. Mhm. mu daal sama xel. ma jënd ko recruter ko. ñëw teg ko ci El Capo macha allah mu génneel ma. bébé aram mi yaakaar na moom kenn ko ko la ci ay macération selon ndax moo ngi door am un mois. mbote bi ci tey. le trois la judd woon. yaay ji moo nekk nii yaay ji moo nekk nii macha allah. macha allah di fixation Abdou Fall. fixation Abdou Fall waaye. macha allah macha allah. petit ñu jàllaat ci euh, beneen sujet. jërëjëf Agnel. Euh, Omar ñu jàpp benn labiel benn melo. Eh, def ay cornu di añal bu rafet macha allah eh, Omar añal bi mooy kan. waaw kii moom mooy Capo fii. mu ne. kii Capo fii. macha allah maanaam El Capo. aha xam nga li nga ci doon wax eh, bu kuy laaj dara wala kuy làmb boo. gisee mbir da koy da koy firndeel. macha allah yaakaar naa moom mi moo ngi dugg ci 10 mois. 10 mois. di doomu ndar-ndar. Mhm. ndar-ndar di doomu Bella. Mhm. Bella di doomu gaynde macha allah. côté papam El Capo moo ko jur. ok Capo yaakaar naa kenn du ko présenté ci càmm gi. ñoo ngi ñëw ci moom. Eh, téléspectateurs yi beneen doomu El Capo ngi noonu. def corne di labiyel. Mm-hmm. benn melo macha allah am 10 mois. macha allah di euh, añel bu doy war càmbar leen ko. incha allah. waaw allah eh, Omar waaw kii moom damay bàyyi rek nga présenté ko téléspectateurs yi. waaw fàttaliwaat gars yi ban pédigré fan la bokk ñan ñoo eh, ak tamit mi ngi ñaata mois allah. waaw kii moom mooy daj dëpp gi allah. Mhm. ñu koy wax El Capo. Mhm. Eh, di doom ci phénomène. Mhm. phénomène di doomu Bible Baypal di kas kas kas, di doomu Boy Séeréer. waaw mu jëm ci jibi bi. côté yaayam mooy Dégén. Dégéen. di doomu Farba ak euh, Grand Royal. muy sëtu euh, Algor. macha di sëtu góor gi en même temps. macha waaw moom góor gi séq na ko ci ñaar. macha allah muy Birayem bi. ak euh, góor gi gi macha allah. macha allah mi ngi noonu téléspectateur yi ñaata mois la am. fi moo ngi ci 4 ans. deux mois. 4 ans, deux mois. Machallah. am na 4 ans deux mois. am 4 trophées. 4 ans deux mois Moi, am 4 trophées eh, meilleur eh, mal. machallah jël ko fi nga xam ne fatik, moom Fatick. 2021 jóge fa ñew bok samo 2021 ñew fi nga xam mom moy Mbour ñew fi nga xam ni mom moy rep jël ko machallah allah eh, fi daw nak daal di perte li nga xam ni mom moy mal adil fi jëlon 4e place waye ren nak dafa ñëwaat dëggalaat bopam indi état de forme machallah allah El Capo ngi nonu bu Somadi élevage. macha allah euh, sëñ Omar. Mhm. Euh, tey euh, ki nga xam ne nii tey mi ngi seetaan émission bi. Mhm. gis El Capo mu neex ko bu bëggoon production El El ndax tey bu ñëwee bergerie Sow di élevage dina ci am. waaw production moom. wax dëgg yàlla yàlla sutural nañu mooy li ma la wax sànq. Mhm. nee naa la dañoo fekkoon gis yóbbu ñu sànq macha allah. ndax ñu ngi ciy gis suñu bopp. production bi tamit dañ koy séddoo ak éleveurs rek. ndax du lépp nga mën a téye. dëgg ba ci moom nii sax bu ko yàlla dogalee. Euh, nit soxla ko te def ci lu ko jar ñu bàyyi ko mu dem. dëgg la parce que ñu ko continuer à vie. te borom bakkan la liggéey na dara ba prouvé récemment wàcce na ay mbotay tooy xepp. macha allah euh, fi mu nekk nii yeneen. maal ñoo fa di liggéey. Mm-hmm. donc euh, production production daal. jot ko jefewul na jafewul. Mhm. Le relation la. Mhm. ak jappalante rek vraiment. machallah machallah Ah, allah. mi ngi noonu nga télé euh, wat téléspectateur yi euh, adresse bi ak numéro téléphone bi. Ah, adresse bi mom moy euh, mu ngi nekk Kër Massar cité gendarmerie 2. Mhm. après hôpital traditionnel bi côté arrêt 59 bi. képp ku fa ñëw boo ma woowee 77 713 68 41 ou bien 76 253 66 25. Oumar Sène incha allah di ma jot. ndax bergerie ci kër Omar répété waatal numéro bi. 77. waaw 713 68 41. waaw ou bien 76 253 66 25. macha allah. merce beaucoup Mor. waaw looy tàggatoo ak euh, téléspectateur RMB yi nga xam tey euh, chaque fois su amee rek da ngay gis ñu ñëw euh, xool wane liggéey wane tamit élevage élevage rek ñor ñu macha allah. waaw li ñuy tàggoo moom bu dul mooy waa RMB di wax ni. jaajëf la ñuy wax jaajëfati sax parce que képp kuy liggéey ku ko wane nga ci bëgg mhm. te xari loo ci yor lu mu baax baax ak lu mu rafet rafet te wane woo ko it nit ñi duñ ko gis donc boo leen amee ay possibilité di ko génne di ko wan nit ñi tamit mhm. vraiment dañuy am njukkeel gu rëy goo xam ne dañ leen ko yoreel di leen ci jaajëfal rawatina moor ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la jaajëfal di jaajëfal sa caméraman ak groupe bi nga àndal yëpp di liggéey comme ni ma ko waxee rek suma waay ji muy Baye Eh, wax deug yalla du di ku jappandi sama sama sama côté ndax fuma ne mo nga ca ci lepp luma ma nekkit nga ca japp nek element eh, soma di élevage donte ay xari bopam la yor sha allah ni nga koy gisee waye day japp sama liggéey di japp ci liggéey somadi bi di nuyu staff bi yëpp ak xalé yi nga xamni ñom ñoo yor xari di nuyu ñepp ñi nga xamni dal daal ñoo ngi and di liggéey te élevage bi tax nañ jappalante te rafetalante di xamni élevage mo lepp teraanga la rek lepp ñepp la lu nekk ku nekk nga ci yal na yàlla yokk te dolli sutura macha allah jërëjëf Mor. waaw macha allah mi ngi nii euh, fii lañ nekkoon muy euh, bergerie euh, Samadi élevage consulting macha allah di bergerie bi nga xam ne ni tey marqué na empreinte ci élevage su laadum macha allah yor un daanaan un champion El Capo moom lañ leen won léegi donc dañuy àndaat ak sama caméraman xuusaat ci box yi xoolaat beneen champion beneen daanaan fii ci RMB TV macha allah euh, champion Diop ah tey ñaari ndaanaan laa fi gis muy champion Serigne Mangane ak champion Laye Sow Thiam ko ñor war leen a téye deux minutes rek xuusaat ci box yi euh, champion Serigne ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi leen di fay waa RMB di ziar téléspectateurs yi seetaan RMB yëpp Mor Ndiaye le grand champion maa ngi lay ziar di ziar sunu caméraman bi oui. Euh, Laye Sow Thiam ko ñor maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Mor surtout Albouri bi tey ñoo ngi nii neuvième édition Adel. dox ci via yi rek dajeeg setu alburu bi nga xamni cham dongo ko ñor dajeeg le professeur mangan Mor yalna yalla barkel RMB nak moy télé bi wóor ñak ko seetaan ci gi worul setu alburu lu wank di dox eh champion Serigne eh, tay ñoo ngi fi nga xamni ni moy 9e édition Saladel eh, Saladel yow danaka première édition ba légui yang koy suivre nak nga 9e édition waaw 9e édition bi euh, machallah élevage nag euh, moo demee nii euh, duñ ne éleveurs yi fi doon ñëw ñëpp ñëw nañ mais boo xoolee ñaari association wala ñetti association mënatuñoo satisfaire éleveurs yi moom moo tax te éleveurs yi élevage bi dañoo euh, association yi dañoo xaw duggante foire yi dañoo xaw a duggante boo seet loolu loolu Mor Ndiaye te yàgg naa dégg nga koy ñaxtu di ko jooy loolu dañoo war a fédéré ñun ñëpp ci benn fédération parce que boo xoolee foire bi ñëpp ñëwuñ mais tamit élevage toll na foo xamante ni ñetti association wala ñaar mënu ñoo satisfaire éleveurs yëpp lii mënu cee ñàkk mais li may jooy tey daal si neuvième édition bi ak sama gis-gis ak Adel ni mu doon mel mooy foire yi ni ñuy duggantee mu ngi bëgg a yàq euh, association yi quoi. macha allah mi ngi noonu euh, champion Laye Sow euh, tey naka nga gisee exposition bi nga xam ne ni tey moo fi nekk muy qualité xar yi. waaw mais surtout Albouri bi maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay mais balaa maa ñëw sa parce que tu nouveau bi fini au niveau de Dakar tay Adel moy association bi nga xamanteni ni nangul nangul nañ ko ni niveau am yokuna bo fa jugee da ngay dem cercle des éleveurs bu docteur Niang bu loolu weesoo da ngay dugg Adam kon li professeur Mangane di joy ñun akhlu élevage yëpp ñoo ci war taxaw ñu teunku ci fédération xol nu ñuy organiser bo foire yi mën a ci norme éleveurs yi ñëw en masse visiter. xar yi tamit mën a ñëw mais mënoo juggé barki demb fi Mboro juggé Ndar bëgg a ñëwaat salon Adel kon li fi xew yépp surtout alburi bi gis nga ko sa caméra man kon ñi ngi ñaan akhlu élevage ñu bokku nday bokku bay wax taaj wax tan wax ségg ba nga xamanteni li nga xamanteni moy cham gi ñu mën ci jëm vers en avant ngir élevage balance bi mën a tolloo taré exposition bi nak mi ngi ni yaa ngi nii ci mbedd yi éleveurs génn nañ tay amna yo xamanteni gennon nañ benen foire foire bii duñu mën a génnaat moor loolu loolu loolu day indi caprice comprendre nga mais daal li may ñaan mooy nañu wax taaj wax tànn wax segg ñëw ci tele bu wóor bii di RMB surtout Albouri bi ànd ak caméra maanaam bu ñàkk ñaan bi ñu waxtaanee mbir yi ba salon bi mën a am niveau bi nga xamante ni moom la yoroon. loolu daal maa ngi koy ñaan ak lu élevage ponk li nga xam ñoo nekk ci kaw tënk élevage le président Aboukan Omar Sow ah ak tous les doyens. ñun li lañu soxla ñu tënku ci fédération wax taaj wax tànn wax segg ba éleveur tollu ci niveau bo xamni ku ñëw da nga xamni niveau bi waccul ben yoon mais fi tay éleveur bu fi ñëw e édition ADEL di nga xamni ah élevage vraiment xari son sonn nañ nit ñi son nañ motax niveau bi demee ni mais alhamdulilahi rabbil alamin mo dal gis na fi ay exposition yo xamanteni xétu xari yu doy war te professeur Mangane première édition ADEL féké na première foire buntu kër kii fa gay fekkee na ko te ñoo ngi nii di waaj a songu rëyit xaadim olam ak pappi Dieye ñoo ngi nii tamit di war a dem ci cercle des éleveurs bu docteur Niang mais xar yi du ñu génn góor gi du génn Ibrahim du ñu génn Algor du ñu génn Bitar du ñu génn Tyson waaye nag professeur Mangane ak bergerie Lamp Fall bu soxna Koddu Ndiaye li mu exposé tar na ak Adja Mati doomu conteneur yaa ngi fa Cheikh Traoré ngi fa. lii laay waxagum ci RMB télé bi nga xam ne mooy leelal càmm gi ak surtout Albouri bi l'infatigable le robot de l'élevage caaw macha allah euh, champion Serigne euh, ba tey rek dañuy taxawaat ci li nga xam ne nii tey moom mooy foire yu bari yi comme ni ko waxee tey euh, ñu ngi waaj a dugg koor su buñ génnee koor da ngay gis ne tamit foire yi tegaloo waat na tey naka lañ war a def ba mën a rassembler ñëpp bañ mën a def comme zone nord tey gis nañ zone nord bi tey ñetti association ñoom ñoo foire tey naka lañ ko mën a décentraliser ba nga xam ne nii tey foire yi du bari te dina am niveau. Euh, macha allah Mor mooy comme li ma la wax léegi rek gis nga lépp ci waxtaan lay euh, lay mujjee parce que président association yi ñun ñoo leen fi teg ñun éleveurs yi te président association suñu bëgg-bëgg ci lañ war a dox ñun suñu bëgg-bëgg xam nga mooy lan mooy président association yi waxtaan ñu tënku ci fédération bi ñuy joxe date yi adel année annuelam mars la adam annuelam janvier la yeneen association yi am nañ ay annuel ku nekk ñu jox la sa date nga xam Ah, dadi du dugante mais tay ji bu bu bu tëngee exposé bu tëngee defee foire jamu gën na day def foire mais man serigne éleveur la mais duma ñew ñëw parce que jamu gën la dëkk té lolu doxalul élevage kon na ñëpp teunku ci ci ci fédération bi ñuy joxé dadi ku ñew bëgg dugg ci dadu jamur ñu neul di nga pousse 2 mois boba xari dinañ noppalu nit ñi dinañ noppalu ndax ñun li ni euh ndax ñun euh, li ni muy euh, association yi ak euh, foire yi ñi def li fête la ci ñun te xam nga Mor Ndiaye mënoo nekk di liggéey chaque weer nga bëgg a euh, chaque weer nga bëgg a ñaan permission fi ngay liggéey nga bëgg a jël congé pour dem foire te am na ñoo xam ne foire yi dañ siy jël congé pour dund seen passion mais mënoo chaque weer nga jël congé bu yàggee dañ lay dàq il faut ñu dimbali ñu ci loolu tamit waa man li ma ciy wax euh, loolu la quoi ñu waxtaan ci. ñu waxtaan. mais champion Serigne euh, pourquoi pas ñu koy def chaque deux ans comme euh, li nga ñu waa Reit ni ñu koy defee euh, tey koo dégg mi ngi naan Reit lay préparé ndax chaque deux ans lay def foire. waaw chaque deux ans parce que léegi association yi bëri nañ comme li ma wax sànq rek ñaari association ñett mënuñ leen satisfaire mënuñ satisfaire éleveurs yëpp mais ñu waxtaanee ñu satisfaire ñëpp mais ñàkk waxtaan parce que dañoo duggante su ma juumul nag xaw ma datu Reit exact lan la xaw ma cercle des éleveurs exacte la mais suma djumul même wer la. même wer la mois de mai bi la. ñom ñep mois de mai la mais lool day metti tay ji ñi nga xamanteni ñom ñoo dekk côté Mbour waroon ñëw Pikine exposé du ñew kees lañu yam ñi dekk kees war a Pikine du ñew kees lañu yam lool nak ci lañu wara waxtaan ku ci nek ñu jox la sa annuel date sangam ñep diko ko dak sangam Mor ndjay mo ay date bi di ñew lay Sow mo ay ñep mën fa ñew tassé mais ni défé ni neexatul quoi. neexatul dafa bëri. macha allah looy tàggatoo ak téléspectateur RMB. waaw li may li may li may li may tàggoo téléspectateur yi. RMB ñëpp a ngi koy seetaan nekkul télé boo xam ne ci poos la télé ci poos ñun lii ñuy def nii ñun rek ñoo koy seetaan ñun éleveurs yi. mais RMB damay ñëw sama kër ñu naa ma démb gis naa la si télé bi ndax ñeneen ñu ngi koy seetaan ñoo xam ne dunduñ càmm gi te lii te lii ñuy def nii te ngay kese ci ne ñu ngi woowaat ñëpp ñu ñu ñëw dugg si parce que xamuñ ñu RMB dina tax ñu xam ñu quoi. oui inshallah koku moy champion serigne mangane borom conteneur lay saw lay tagato ak téléspectateur wa mais mor ndjay surtout albouri bi dila ñaanal guddu fan ak yaram dila wax rmb da yok élevage mais wañi wuko benen bi may wax moy mor da nga am taxaway bu am solo ci cham gi ba aduna gep nangul lako li professeur mangane wax nañ ci bayyi xel ñu wax taaj wax tan wax segg ngir njariñu élevage mais buñ ko waxtane wul rek ëlëk luy luy luy métti yëpp ci ñun la ci ñun lay këppwaat ba tax na communicateurs yi nekk ci axlu élevage dañoo am part de responsabilité Mor dem nga Ndar dem nga Fatick ah dem nga Reit dem nga cercle des éleveurs fu foire am bàyyi nga sa yitte dem te dat bu duggantee vraiment Mor da nga da nga koy jaayante rek mais doo ko mën sinon di nga blessé say bopp te yow éleveur nga yor doyen di xar bu mucc ayib léeg-léeg dama ciy werante ak yow da bàyyi sa temps yëpp. jox ko ak lu élevage fàtte say xar te doyen EDK eh ko euh, moo ko meññ te te xar la nañ ci veillé lii nag na doon suñu combat ñun ñëpp ñu porté ko ak professeur Mangane bu fekkee ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci ak lu élevage ñu jiital leen ñu jiitu mënuñu toog waxtaan ngir satisfaire ñu dat yi sorante comme rëyit tous les deux ans ñëpp nangu rëyit niveau bi yokku na kawe na ñu ñu fexe ba ADEL am ko fexe ba cercle des éleveurs bu docteur Ibrahima Niang am ko sinon rek luy métti yëpp ci ñun lay ñëwaat parce que duñ ko attan professeur Mangane mi ngi koy wax mënoo chaque euh, weer nga ñaan permission fi ngay liggéeyee ngir càmm gi te càmm gi dafa métti lu ñëpp bokk nag muy lépp ñëpp lu ne ku ne nekk ci dañ koy waxtaanee waaye RMB daal ñàkk ko seetaan wóorul fii la mburu mi xoyam xoyame fii la càmm gi ñoree moom jaay sëtu Alboury bi kenn du yow caaw. macha mi ngi kon gars yi euh, dama fi keppoon rek ñaari ndaanaan ñaari champion ñu waxtaanee tuuti ci élevage ñii dama leen di jëla ah. dama di jëli ji. teg leen plateau RMB macha allah ñu waxtaanee càmm gi ndax lu ñu wax nii lu am solo la ndax càmm gi daa bëri ay foire chaque weer foire foire foire bu yàggee rek euh, day metti suñu élevage bi élevage bi day lambu. sponsors yi ñu ngi commencé daw parce que euh, foire yi ñoo bëri mënuñu satisfaire éleveurs yëpp mënuñu satisfaire association yëpp kon na gars booloo def ay zone ñu daal di foire foire neex ñu namu ko comme ni mu daan amee Saladam donc dañuy xuus continuer dem ci box bi nga xam ne ni tey fa lañ doon dem dajanteeg ñaari champion yi di leen jaajëfalaat bu baax waaw macha allah téléspectateurs yi ñoo ngi ni sunu quatrième box macha allah di bergerie euh, Lamine Fata borom univers Ladoum macha allah euh, gis fi un daanaan un champion euh, Lamine ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Mor Ndiaye di leen nuyu di la ziar di leen dalal ci sama box bergerie Lamine Fata. Mhm. Euh, tay euh, équipe RMB TV euh, machallah allah di Rufisque Mbao TV mhm. tay moom mo ñëw ci foire bi di 9e édition mhm. tay bëggoon nañ xam exposition bi moy sa ñaateem édition. waaw mën naa ni foire Saladam bi bi moy ci sama deuxième participation. Mhm. donc sama deuxième exposition moom mo nekk ni inshallah tay tey bergerie Lamine Fata une borom univers fan la bergerie bi nekk. ah bergerie bi mi ngi nekk jàmm gën. waaw euh, ci terminus si 78 bi. Mhm. waaw foofu la Bézir bi cité wu quoi. macha allah numéro téléphone bi. numéro téléphone bi mi ngi nekk 77 504 16 72. macha allah tey euh, Lamine. Mhm. Euh, ñu bëggoon a xam tey Lamine kañ la dugg ci élevage su laadum ak kan moo ko ci dugal. waaw élevage su laadum bon laadum lu ma yàgg a bëgg la yàgg ko topp. mais sama activité moo ma ko permettre woon parce que dama daan voyager lu bari quoi. comme dama nekkoon à l'étranger donc moo taxoon mënuma ma ci woon teel a dugg. mais xar yàgg naa ko topp yàgg naa ñëw ci ay foire yoo xamante ni assisté naa ko. mais boobu samay sama temps mayu ma ko woon. mais bi Covid bi duggee euh, ci laa am temps pour dugg ci élevage donc maa ngi ci dugg 2020 euh, euh, janvier 2020 laa commencé quoi. 2020 nga dugg ci élevage. Mhm. macha allah mi ngi noonu euh, téléspectateurs yi. 2020 mhm. euh, ñëw yor sujet yu doy waar yor maal bi doy waar macha allah. Mhm. mais tey euh, exposition foire naka lay def éleveur. waaw expose exposition foire li muy def éleveur mooy di nga ñëw ci foire bi indi say sujet ñu feeñ ci foire bi nga ñëw fekk fi ñoo mën nga ñëw fekk fi ñu la mën. Mhm. donc saa boo ñëwee ci foire rek mu am beneen jàngat nga amaat beneen feuille de route. pour boo fi jugee. Euh, xam fi niveau bi élevage bi toll. Mhm. man jàpp naa ne foire ngay ñëw pour mën a comprendre élevage bi ban niveau la toll. Mhm. mais tey Lamine euh, ñi nga xam ne ni tey ñoom ñooy euh, téléspectateurs yi di seetaan mhm. li nga xam ne ni moom mooy bergerie bi émission bi. tey ku bëggoon siisee ci bergerie lamin Fata ndax dina yomb. non man ama problème damay woyofal bu baax parce que man débutant laa. te bi may ñëw vraiment gars yi jàppale nañ ma. def nañ ci ndimbal am na ci. parce que vraiment bi may ñëw gars jàpp nañ ci bu baax. Mm-hmm. te tey man li may liggéey élevage ginnaaw élevage partage la ñu wax. Mm-hmm. kon damay pare li may liggéey ma partage kook nit ñi mu gën a yaatu. incha allah. Uh-huh. Ah, mi ngi noonu kon dañuy jàll ci euh, présentation de sujets mm-hmm. euh, ñu càmbar li nga xam ne ni tey moom la Lamine exposé fi nga xam ne ni tey moom mooy euh, Saladel di neuvième édition bi macha allah Lamine. taxawaay bu jekk macha allah. Uh-huh. mal bi mooy kan ak fan la bokk. waaw maal bi mooy phénomène bi la phénomène de l'élevage mhm. ñi naan ko yoole yoole mhm. euh, di doom ci du gaynde mhm. euh, du gaynde ku ko xam xam ni doomu gaynde la gaynde nekk doomu saalum saalum aha côté yaayam euh, muy Carlo Di ndax yaayam petit fils de Carlo Di la incha mais mi ngi toll si ñaata mois Wow, actuellement, mingi tolu ci 29 mois. 29 mois. Mm Allah, Machallah, mingi nonu téléspectateurs yi. Mm -hmm. euh, ndax def na ay production ci bergerie bi. Wow, euh jot na fa liggéey parce que production, am mhm. fa Euh, premier def na fa premier tour ba defaat deuxième tour. Mhm. donc pour le moment mi ngi nekk ci deuxième tour am pour le moment. macha allah mhm. euh, kon euh, téléspectateur mi ngi noonu kooku moom mooy champion yoole yoole mhm. di maal bi nga xam ne ni tey moom moo nekk ci bergerie bi di liggéey. donc dañuy jamaat ci yeneen sujet mu présenté ñu fan lañ bokk. Euh, champion Lamine. waaw ñu ngi jàpp benn femelle bu def cuulul ak tak collier bu orange cuulul bi mooy kan ak fan la bokk. waaw cuulul boobu boo xoolee mook maal bi ba tey ñoom ñaar ñoo bokk papa mais bokkuñu yaay. Mhm. Euh, moom muy doomu duugaynde aussi. Mhm. waaw comme man bi may dugg ci élevage dama ñëw. fekkoon fi duugaynde mu nekkoon maal bu jéggi dayoo. incha allah euh, ñëpp doon daw jëm fa. Mhm. ma teel a jóg jëm fa. te bi ma demee saf naa ci sàpp ndax am naa ci góor am ci jigéen. macha Euh, doomu du gaynde la xam ah. mi ngi toll si ñaata portée. waaw moom mi ngi nekk ci deuxième portée nii lay nampal. deuxième portée moom deuxième portée lay nampal nii. macha allah. à peu près war na toll ci euh, ay dix huit mois dix huit dix neuf. dix huit dix neuf mois macha allah. gis euh, beneen euh, añel bu xam ne mhm. nii moom lañ jàpp. Euh, kii mooy kan ak fan la bokk. waaw añel bii nii di sët ci Nelenkaar di doomu Nelson. Mhm. te boo xoolee Nelenkaar doomu magistrat la. Mhm. donc mën nga ni sët la ci Nelenkaar donc moom. sët la ci ci magistrat. macha allah mi ngi toll si ñaata porte non moom benn porte la defagum moom mi ngi door a taawloo euh, yoole. boo ko ah. xoolee moom espoir la. espoir la espoir la mi ngi toll ci euh, euh, quinze mois. ah mooy nàmpal mbote bi. Ah, mooy nampal mbote bi. mbote bu ñuul bi moo ak yoole. waaw mbote bu ñuul bi doomu yoole la. macha allah. macha allah Lamine ñu jàpp beneen femelle euh, robe noire tak collier vert. Mhm. Euh, robe noire bi moom mooy kan ak fa la waaw kii mooy Fatou Waré euh, di sët ci All Black parce que benn doomu Lamine moo ko jur. Mhm. benn doomu All Black ñu koy wax lamin ak vite fait. Mhm. donc moom moo ko jur ma tuddee ko Fatou Waré. donc sang wu la parce que sët la ci Sibéeru sët la ci All Black. macha allah. Mm. mi ngi toll si ñaata portée. waaw moom tamit aussi euh, espoir la. donc benn portée la dafa gum. Mm-hmm. donc mi ci deuxième portée la portée nii. Mm-hmm. mi ngi toll ci 18 mois. mais macha allah tey Lamine lan mooy euh, secret bergerie euh, Lamine Fata mais nday gis nañ nga indi fi ay femelle ay espoir agnelle. Mm-hmm. tey gis fi ay xale. te yu ngi am ay macération yu terrible. da ngay foog ne ay femelle la yu def ay 3 4 portées. te ay 2 portées benn portée lañ def. tey lan mooy secret bi. waaw man sama secret moy bima ma baña nax sama bopp. xol fi crème bi tollu élevage bi ma parce que ma dama gëm ni élevage. Euh, éleveur mhm. mais ñu ragné la moy niveau pour ñu il faut des qualité. Mhm. donc qualité plus esthétique. Mhm. waaw fi bi rek ñu ñëw euh, Euh, du gaynde nekk maal bi nga xam ne ni tey dafa marqué empreinte am si élevage bi mhm. nekk mhm. xar bi nga xam ne ni tey mhm. bokk na ci xar yi gën a seer ci élevage bi tey nga yor doomam bu góor macha allah muy def ay production tey ku bëggoon tey ci production yoola euh, yoole yi ndax dina disponible non bu ku ko bëgg day disponible malgré euh, Saalum bi ku ko dégg. Euh, gën a xam na ni Saalum bi moom lañ moom la ñu woowee pétrole élevage bi. nga bu dee suñu laaj ni Saalum mooy pétrole bi. Mhm. mais man awma problème man élevage dama ci dugg. Mhm. pour euh, passion mais dugguma ci pour xaalis kese noonu non non. man xar yi moom ku ko bëgg ku bëgg sama xar damay am plaisir u partager ko ak yow. kon donc man awma ci problème ah. mhm. ku ci ñëw bëgg. incha allah dinañ xool nu mu gën a jàppandee. ñu jàppandal ko incha allah. macha allah mais tey ñu gis nga exposé ñaari box si Saladel bi. Mm. loolu nekkul lu yomb ah, tey dañuy xuusaat ci beneen box bi. xool lan lañ fa exposé. d'accord incha allah. Ah, macha allah Lamine ñu ngi ci deuxième box bi. Ah, ñu gis la nga exposé fi ah, ay mbote añel yu doy waar. Mhm. ak benn euh, mbote bu góor moom tamit. Mhm. tey añel bi ñu jàpp nii moom mooy kan ak fa waaw añel bi ñu jàpp ni euh, moom mooy mama yoole di mhm. doom ci yoole yoole euh, yaa ji di sëtu roi Basir ndax benn doomu roi Basir bi ñu naan 10 000 problème moom lañ jël teg ko ci teg ko ci benn doomu Fakeba mu wàcce ko. macha allah moom doomu yoole la. waaw moom moom doomu yoole la. macha allah yaayam mooy sa tur waa Basir di doomu 10 000 problème. macha allah. Ah. waaw macha allah euh, lamin ñu ngi gis euh, ñu jàpp benn tête nue. te uh-huh. euh, di labiyel benn melo macha allah. Uh-huh. añel bi moom mooy kan ak fa la bokk. waaw añel bi kii mooy Foucha. Mm-hmm. di doom ci yoole. Mm-hmm. parce que yaayam mooy welcome welcome di doomu Brown. Mm-hmm. ku xam Brown xam ni foire Pikine 2019 Brown moo ko jëloon. di champion ma dem jëndi doomam. Uh-huh. macha allah. donc moom. Sam Brown la. ak Saloum. Mhm. parce que Saalum bi mooy côté Saalum bi mooy yoole mhm. bu dee côté yaay ji moom mooy euh, brown quoi. macha allah euh, beneen añel bu ñu jàpp moom tamit di labiyel xanaa ay seex lañ. waaw ay seex lañ. macha allah moom ay jumel lañ. macha ah, allah ñu ngi toll si ñaata mois. ñoom ñu ñu ngi toll ci 6 mois. 6 mois macha allah.

aji uh-huh. aji yoole aji yoole macha allah uh, ñu gis uh, beneen mboote xam naa ne uh, est-ce que xonc woo ko sax ñëw indi ko fii <laughs> kii da dafa war da doon namp de non kii da doon namp mais gam foire bi demee ne noo ni si si gars ne ma il faut ma indi liggéeyu yoole mi ay production yi macha allah merci moo tax mu ñëw mais kii deux mois la am. dëgg la dañ ko jëlee muy nàmp ci yaay ji. macha allah boo ko xoolee mais comme masteros yu ma am. Mhm. bon amuñu luñ ciy jiit quoi. dëgg la nañ ni kii loolu du ko wàññi dara. mais mi ngi toll ci deux mois. mais macha allah euh, lamin tey euh, ñu gis nga def exposition bu mucc ay ah. indi tey yoole gars yi càmbar si. Ah. mais nga indiwaale box spécial boo xam ne ni tey dañ see def ay doomam présenté doomi góor yi doomi jigéen yi tey lan ngay wax éleveurs yi. waaw li may wax mooy liggéey te bañ sa bopp rek. ndax man li ma gëm mooy bu ñu liggéeyee ba génn jot ñu génn bu ñu génnee nag teg ci taabal ji wan gaa yi ñu si seen bopp. mais ñun daal ñi ngi suñu yoon te ñi ngi liggéey di góorgóorlu di wax ne gaa fu ñu toll rek xeeb nañ ko ndax lu ñu gëm mooy liggéey fekk gaa ci kaw. ndax ñun loolu mooy suñu vision. mooy objectif bi waaw mooy objectif bi loolu la mais tey euh, tey euh, Lamine. Euh, exposition bi. Mm-hmm. exposition éleveur lan lay def foire. foire waaw exposition éleveur

Euh, mais Lamine xam nga émission bi moom euh, chaque dimanche lañ koy teg. Uh-huh. gars yi buñ koy seetaan dañ may sonal ak ay appel uh-huh. Mor kii nga dalaloon uh-huh. numéro téléphone bi fan la dëkk. Euh, nga fàttaliwaat téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan émission bi. Ah, mais les téléspectateurs ma leen di wax ni sama adresse mi ngi nekk Diamaguène si Sicap Mbao donc maa ngi dëkk gën ci terminus soixante soixante douze bi voilà léegi sama numéro téléphone mi ngi nekk 77. 504 16 72. macha allah. répété waat ko Lamine. waaw sama numéro téléphone di 77 504 16 72. waaw numéro baa ngi noonu di 504 16 72 ku ci woote rek macha allah boo bëggee ci ah, production yoole yoole yi macha allah looy tàggatoo ak téléspectateur RMB TV. waaw RMB TV di leen wax ni macha allah. ndax liggéey bi pertinente na. Mhm. donc di am contentement ci dalal bi mu leen dalal ci sama bergerie Lamine Fata. Mhm. donc am naa contentement di yaa macha allah. Mhm. ndax liggéey bi pertinente na. macha allah mais xam naa ne nag émission bi xam sa champion la tudd. xam nañ champion yoole mais dinañ ñëwaat bergerie ba. Euh, gën a yaatal gën a toog euh, càmm. mais tey rek ci foire bi lañ ñëw xam nga. Hmm. téléspectateur dañuy dund élevage. Ah, mi ngi noonu kon gars yi euh, ñu ngi woon ci boxu Lamine Fata yoole. Hmm. macha allah borom yoole yoole di exposition ñu gis fi aussi. Hmm. exposition bu mucc ayib yoole ñëw ak femelle yu mbagi ñëwaale aussi indaale production yi macha allah ndax maal loolu lañ koy doyee. am mensuration ba pare di def production macha allah mi ngi noonu kon dañuy dem rek daa di xuusaat jàllaat ci sunu dernière box bi daal di tëj ba beneen yoon jaajëf. d'accord. waaw macha allah euh, téléspectateurs yi ñoo ngi fi nga xam ne ni tey moom mooy sunu cinquième box euh, di bergerie euh, Mama Yacine fekk fi un daanaan un champion champion ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax ma wax. ñu ngi bëggoon nga fàttali téléspectateurs yi tur bi. waaw tur bi maa ngi tudd Babacar Diouf. Uh-huh. waaw nekk si bergerie Mama Yacine exposé fii Saladel box 24. macha allah tey euh, ñu bëggoon a xam bergerie Mama Yacine fan la nekk si euh, Sénégal. bergerie Mama Yacine mu ngi nekk Fass Mbao raay ba quoi. waaw Fass Mbao raay ba. macha allah uh-huh. la macha allah euh, tey ñu bëggoon a xam bergerie Mama Yacine kañ la dugg ci élevage. waaw bergerie Mama Yacine dugg na si élevage depuis deux mille mun nañ depuis deux mille dix huit officiellement. Uh-huh. mais comme nekkoon si xar yi di càmmantu rek yor benn femelle di tourné ko. mbaay noonu la ñu nekkoon si élevage bi. ba deux mille vingt et un sa octobre deux mille vingt et commencé nekk spécialement si élevage bi laa dund. macha allah euh, tey yaa ngi fii nga xam ne ni tey mooy sala Saladel. di neuvième édition. Euh, tey ñu bëggoon xam bi mooy sa ñaareem exposition Saladel. waaw bi mooy suñ deuxième exposition ndax daaw moo nekkoon suñ première exposition. Mhm. suñ première édition. macha allah euh, tey ñu gis nga indi fi ay sélection bu doy waar. Euh, tey euh, mën nga ñu présenter lan ak lan ak euh, exposé mooy maanaam yan catégorie nga indi fi waaw ñu ngi fi indi benn maal boo xam ne doomu Sàllangaari la. Mhm. yaa ji nekk fixe Basir. Mhm. indi fi ñaari femelles yoo xam ne benn bi doomu jackpot la. beneen bi nekk doomu boypu la. indi ay doomu kii yoo xam ne benn jeune mâle boo xam ne doomu mâle bi la ak ñaari añel yoo xam ne doomu mâle bi la aussi. macha allah mi ngi noonu euh, téléspectateur yi ñu gis fi euh, benn maal bi nga xam ne ni tey euh, remarqué nañ ko ci élevage bi muy miir wax ma gisoon ko fi nga xam ne nii moom mooy foo rep mu jëloon foo meilleur jeune mâle tey moo ñëw nekk ci boxu bergerie Mama Yacine tey champion bi nga xam ne ni tey moom mooy miir wax gis nañ ko mu génnoon fi nga xam ne mooy foiru rep jaadu fay jël meilleur jeune mâle tey miir wax mi da kaa jënd wala da nga kaa juddulee. waaw miir wax dañ kaa jënd. Mhm. waaw ndax suñuy gars yi baax ñoo ñu xool xam ne li ñun suñu élevage dafa manqué maal. dëgg la am nañ ay femelles mais manqué nañ maal boo xam ne war nañoo mën a yéegal si kanam. ñu def si ñu def si xéwal jox ñu ko ñu siy liggéey wax dëgg yàlla ba mu duggee si bergerie ba léegi ay xéwal rek lañ ciy am. macha allah waaw sant nañ ci yàlla bu baax parce que gis nañu ne mu ngi produit lu rafet mi ngi produire aussi ñu ngi nuyu satisfaire aussi. macha allah euh, ñu bëggoon rek nga fàttaliwaat téléspectateurs yi seetaan balaa ñuy xuus ci émission bi. Euh, numéro téléphone bi pour ki nga xam ne nii tey bëggoon na ñëw ci bergerie euh, Mama Yacine numéro téléphone bi lan la. numéro téléphone bi ku bëggoon ñëw ci bergerie Mama Yacine man sama numéro téléphone mu ngi nekk 77 151 13 79 bu dee gérant bi mooy Ali Diouf numéro téléphone bi mu ngi nekk 77 540 30. macha allah dinañ ñëwaat ci numéro téléphone bi euh, ñu ñëw ci euh, li nga xam ne ni tey moom mooy euh, présentation des sujets ñu dugg càmbar box bi xar bu nekk ñu jàpp ko xool pédigrém fan la bokk côté yaayam ak côté papaam léegi léegi. macha allah dañuy njëkkee ci maal bi maal bi mooy kan ak fan la bokk. waaw maal bi mooy miir wax. waaw ah, miir wax nekk doomu Sàllangaari. yaay ji nekk sa Basir. moom yaakaar naa képp kuy élevage jamono jamono képp ku nekk si élevage jamono ci war nga ka xam boo ko xamul tamit dégg nga ko parce que def na fi jaloore ndax moo nekk champion rep 2022 agneau macha allah waaw ngi toll si ñaata mois mu ngi toll si 23 mois 23 mois miir wax a ngi noonu macha allah di jeune mâle bu doy waar nekkoon meilleur jeune mâle fi nga xam ne moom mooy foiru yëmbal bi ñu génn macha allah di 2022 bi euh, macha allah ñu jàppaat beneen sujet ñu càmbar ko nu ba rek ñu ngi ci euh, bergerie Mama Yacine euh, femelle bi ñu jàpp moom mooy kan ak fan la bokk. ah femelle bi mooy Juliette. Mhm. Juliette dañoo jël benn doomu magistrat teg ko si jackpot mu génne Juliette. macha allah troisième porte doomu jackpot la. domu jackpot la waaw. Ah, macha mi ngi jackpot nga xam ne tey moom mooy euh, champion fi la nekk champion fi nga xam ne moom mooy 2021 di mal bu doy waar moom mi ngi toll si ñaata porte mu ngi toll si trois porte la nekk. trois porte macha allah. macha allah mi ngi noonu téléspectateurs yi di femelle bu doy waar macha allah waaw ñu demaat si beneen sujet. waaw macha mi ngi noonu téléspectateurs yi ba tey ñu ngi gis benn femelle bu ñuy wax tête nue euh, def robe noire macha allah euh, femelle bi mooy kan ak fa la bokk. waaw mooy Aïda. Mhm. doom booy pula la quoi. dañu jël benn femelle benn doomu Boy Niang. Mhm. teg ko si dañu euh, dañoo jël benn doomu Diatta Séeréer. Euh, bu jigéen. Mhm. teg ko si Sunjata benn doomu Nation. Mhm. mu génn femelle ñu jël femelle bi teg ko si Boy Pula mu génn ko. macha allah. ah mi non noonu de mi ngi toll si ñaata portée. mi ngi toll si trois portées moom tamit. ah macha allah ah di femelle bu doy waar. waaw macha allah oh ah, macha allah ñu gis benn jeune mâle bu génn def ah, robe noire ah, takk ay linetam macha allah fana bi génn ah jeune bi mooy kan ak fa la bokk. waaw jeune mâle bi mooy alhamdu. Mhm. même doomu miir wax la ko doomu miir wax la. waaw doomu wax la. mooy mâle bi macha allah. waaw yaayam nekk benn doomu euh, Cobra. yaayam doomu Cobra. waaw doomu mooy yaayam waaw. macha allah. moo tax it Cobra bi feeñ na ci trop macha allah ñuy wax la ca maam dama sëto koy jëla macha allah. mi ngi ci si ñaata mois. mu ngi si mois la nek instant bi. macha allah macha allah macha allah macha allah. ah élevage nañ ko bàyyi xel mi ngi noonu macha allah. macha allah mi ngi nonu euh téléspectateurs yi ba tay rek. ah yi Mama Yacine macha allah euh, mboote bi ñu jàpp moom mooy kan ak fan la bokk. Ah, mboote bi tamit doomu Juliette la doomu jackpot bi moo ko jur. femelle bi waaw yaayam doomu jackpot bi la. waaw mooy maal bi ba tey mi wax. macha allah ah, macha allah mi ngi noonu. ah kii yaayam ak papaam a noonu ci box bi exposition bu mu ci ay vraiment macha allah ñaata mois la am. instant mu si 4 mois. macha allah 4 mois. oh. jàppale ko allah. Euh, añel bi aussi tamit moom mooy kan ak fan la bokk. añel bi tamit doom booy pula mooy yaayam. beneen doom booy pula bu ñu yoon mooy yaayam moom ay trio la ok waaw. tamit mooy miir wax ba tey moo ko jur. Ah, doom miir wax la doom miir wax la waaw macha allah. macha mi ngi noonu xoolal tey dañoo gis euh, nga exposé euh, ñaari femelle ak miir wax ak production miir wax tey naka nga defee sélection bi ni mel. waaw parce que mi wax dafa nekk maal boo xam ne ñëpp xam nañ ko si banlieue bi. dëgg la waxuma la si élevage mais dafa dafa def ay ay ay ay ay dafa def benn résultat bu am solo si banlieue bi. dëgg dem jël fa benn champion ba pare ñëwaat woo dugaat fois si banlieue bi. Mhm. ñu woo kaa indi ak ay doomam. macha allah moo tax ñu indi ko indiwaale lii tamit. Mhm. ah man damay ragal euh, nga jógee ci foire bi. waaw ah, yóbbu masuwaari kase. <laughs> ndax exposition bu mucc ayib mais naka nga defee sélection bi ah, équipe la wala. nu mu demee noonu. waaw équipe la équipe baa ngi nii sa ginnaaw xam naa après di nga leen jël sa gars yi gis leen. macha allah ñun moom xam nga ku ñu xool suñu jëmm yi rek. xam ne bu doon ñun ñun kese lii mënut a sotti quoi. am na ay gars yu baax yu nekk suñu ginnaaw yi dañuy xelal chaque jour ñu ñuy wax wax dañuy xelal lu baax daal. fu ñu jàpp ne bu ñu fa tegee suñu tànk dañ avancé élevage yi ñu fay tegloo suñu tànk. macha allah dañ tamit ñu leen déglu. loolu loolu daal moo ñu yóbbee fii daal mais tey lan mooy objectif u euh, bergerie Mama Yacine tey éleveurs yi ñetti objectif moo fi am ñii wut xaalis ñii xar yu rafet ñii ay xaru concours tey su la doon laaj objectif bi lan la yan nga boole. waaw objectif bi moom liggéey jaamu yàlla kese liggéey jaamu yàlla maanaam xar yi nekk si mu ñuy mu ñuy tegal ñu siy jaamu yàlla mooy suñu objectif si élevage bi. dëgg la waaw ndax ñun bu ñu sañoon bu ñu sañoon li ñuy ñaan mooy lépp bépp alal bu am si élevage bi rek. Mhm. dañ koy sëddëg doomu aadama yi pour jaamu si yàlla. dëgg la waaw objectif bi liggéey tegal si suñuy waaju tegal si mbokk tegal si ay julit macha allah loolu mooy suñu objectif si élevage bi. macha allah mi ngi noonu euh, téléspectateurs yi yéen a ngi gis euh, exposition bi nga xam ne ni tey bu leer bu rafet macha allah rien à dire am contentement ndax éleveur moom euh, bu gisee xaru rafet da ngay gis ne yaram bi day laaj mais tey ku bëggoon a ñëw tey ci bergerie ba ci bëggoon ci production wu miir wax ndax am na yu disponible foofu. waaw instant bi comme dañuy liggéey. te maal bi mënoo téye léppam. il nga am loo téye si moom li si des nga séddoo ko ak say mbokk élevage partage objectif boobu rek lañ fi am léegi dañuy téye si maal bi ay doomam pour mun am beneen maal boo xam mun naa yeggal liggéey bi ainsi du mus du taxaw maal boobu tamit buñ ko amaatee day liggéeyat comme nañ cee séddaate sax parce que ñu ciy sédd mais am na yu ci téye nag ku si bëgg tamit boo ñëwee bergerie ba boo gisee li nga bëgg bu ñu waxtaanee ba jubóo ne leen euh, bergerie bi fii la nekk ak numéro téléphone bi fàttaliwaat leen ko. waaw mu ngi nekk Fass Mbao Tali Kaba. Hmm. waaw numéro téléphone bi man sama numéro téléphone mooy 77 151 13 79. wala Ali mi nekk gérant bi numéro téléphone am moo nekk 77 505 00 40 30. macha allah mi ngi noonu répété waat ko. 77 151 13 79 mooy sama numéro téléphone numéro Ali 540 30 mais aussi bëgguma jeexal te santuma ko moom tamit gërëm ko ndax sama rakk la. Mhm. ñoo bokk benn papa. dëgg la tey mënoon naa nekk si élevage bi di ut keneen ku may liggéeyal mais moom laa bàyyee lépp. dëgg la moo dafa dal si moom. tey mun nga nekk ak koo xam ne da nga koy jox ay saako yu paas naan kii est-ce que nekkul di wàññi saako yu paas di jaay wala ngooñ dëgg yooyu mais sama xel dafa dal ci moom te macha ko gën a bëgg moo tax wax dëgg yàlla dama see sant yàlla tamit di sant tamit ku mel ni sama tooma moom bu ma waxee xam ne ki may waxal Ousmane Sall moom tamit xam ne bàcc hmm. waaw ñoom daal ñoom ñoo nekk mooy staffu bergerie bi daal di sant tamit samay mag ñi nga xam ne ñoo ma jàppale si élevage bi ba xar bu baax bu ma gis su ma ko bëggee du jafe si man macha allah waaw te di xel mu dal tamit kenn dérangé wu ma si di ñaanal samay ñaari waajur tamit di leen ñaanal yàlla na leen fi yàlla bàyyi ba njëriñ li may seen si élevage bi. amiin ak ñoom amiin amiin allah. Euh, looy tàggatoo ak euh, télé bi nga xam ne moom mooy RMB TV euh, ñëwoon fii nga xam ne ni tey moom mooy Saladel di neuvième édition di jël mënuñoo jël box yëpp mais champion yi rek lañ détecté émission bi nag mi ngi tudd xam sa champion tey nag ñu xam nañ champion bii nga xam ne tey moom mooy mbir wax pédigrém macha allah looy tàggatoo ak téléspectateurs par exemple yeneen suñuy tank yeneen suñuy beut parce que ñun des fois foire day am duñu mëna déplacer déplacé wu pour dem xool yi dëgg la ni foire bi demee ambiance bi exposition bi nan la qualité xaar yee ak yoy mais dañuy tok té suñu télé téléphone mëna xam ni mu demee yëpp moo tax yeneen suñuy tank yeneen suñuy beut machallah allah dama leen encourager ci liggéey bi di leen ñaanal tamit seen télévision bi li ngeen ci bëgg yalla défal leen ko ci amin yalla défal leen mu nek télévision bo xam day am scène bo xam ne dañ koy mun sétan tout le temps yalla yokku leen daal ci zaahir ak si baatin li ngeen bëgg yéen ak xam yalla défal leen ko ci jamm ak salam macha allah mi ngi noonu waa waa xam waa téléspectateur RMB yi euh, équipe baa ngi nii équipe baa noonu càmbar leen euh, bergerie Mama Yacine macha allah ñëw exposé fi euh, lu mucc ayib macha allah très belle exposition lañ fi def gis nañ fi ñu teg fii ñaari femelle yu doy waar kenn ki nekk doomu jackpot keneen ki nekk doomu boy pulo macha allah indi fi maal bi nga xam ne ni tey moom mooy wir mir wax di sampion jeune mâle rep 2022 bi macha allah gis aussi production yu mucc ayib bi macha allah ah di leen wax ne leen téléspectateurs yi jël leen numéro bi ngeen dem càmmi ji euh, ci bergerie euh, Mama Yacine macha allah jaajëf. waaw macha allah mi ngi noonu euh, téléspectateur RMB TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen jaajëfal Ah, di leen wax rek ne leen lii leen leen indiloon seen émission xam sa champion fii ci Rufisque euh, Saladel di neuvième édition macha allah ñu gis fi exposition bu mucc ayib gis fi ay ndaanaan gis fi ay champion euh, kon daal euh, ñu ngi leen di jaajëfalaat rek di leen jox dig daje ba dimanche bii di ñëw ñu dalalaat yeneen ndaanaan yeneen champion ci fii nga xam ne nii mooy RMB TV xam sa champion mais nag téléspectateurs yi. ah abonné leen si seen YouTube bi recherche leen RMB TV ngeen abonné si seen YouTube bi waaye yéen tamit yi nga xam ne ni tey ay partenaire ngeen ñëw leen ngeen accompagner ñu ci émission bi nga xam ne ni tey mooy xam sa champion di émission bi nga xam ne ni tey élevage moo ko tax a jóg muy élevage volaille bi di élevage bétail bi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi doon teewlu di ñu topp saa su ci émission bi nga xam ne ni tey moom lañ leen di may muy émission di xam sa champion champion sama cameraman ñu ngi lay jaajëfal bu baax di ziare ziare euh, euh, réalisateur yeeg ñëpp ñu ngi monteur yeeg ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal waa RMB TV di nuyu ñëpp di ziar ñëpp te di jaajëfal ñëpp jaa ngeen jëf.